ñëw boo demee ba Ndindi rond daara bi tamit dañ koy bàyyi police ak ñu jëm ci corniche bi waaye tamit mën nañu yenn saay su police soxlaa ñu combiné waaye bu dee président bi nag mooy ñëw président de la république wala yooyu boobaa ñun dañ ciy ànd directement ñëw ba ci biir kii bi ba ba mu def visite ba pare ñu doog a ñu doog waaye comme police dafa yor secteur ñun tamit ñu yor suñu secteur. voilà voilà xam nga bu màggal amul dañ koy baaxoo di def ba tey sax dañuy defaat euh, comme opération combinée yi ñuy waajal màggal gi defoon nañu benn le passé euh, le 17 passé léegi dañuy defaraat yi yeneen ñaar balaa màggal gi jot waaw loolu tamit ñu woon nan la ko yeggale tamit. waaw ñun ñun ak police ñoo ko yor man ak commissaire seen ñoo ko doon coordonné. voilà te pare woon nañu bu njëkk bi léegi des na ñaar ñi ñaar ñi nag dinañ ko def balaa balaa màggal léegi nag euh, colonel bi dafa ñëwaatoon tamit pour wane ni général bi dina fi ñëw xam naa alxamis 31 wala weer kii boobu pour ñëw aussi moom tamit euh, nemmeeku si liggéey bi nga xam ne ñun jot nañ ko fee def bu amee lu ñu ci yokk moom mu wax ñu ñu yokk ko euh, comme ni ñu ko defee at mu jot rek. voilà loolu laa amoon rek kàddu yi ma ci yi ma ci doon wax di jégalu nag bu baax a ah, liggéey bi ci biir dëkk bi suñu xel dal na ci bu baax a baax ndax naka jekk eh, mi ngi baax di rafet waaye ni ngeen ko yokkaate moom gën naa dalaat suñu xel bu baax na yéen ñi nga xam ne yéen a seq liggéey bi tàmbalee ko ci seeral Moussa Fall mu ci tax taxawaay bu rafet ndax seere nga ne lépp loo ko ci wax rek mu def ko nim la ko bëggee yow itam ñu lay seeral sa cantu bopp ndax taxawaay bi ñu ci taxaw di ci waree sa yéene joxoot joo xam ne sa digg ak Sëñ Tuubaa ak gi moo ko andi ba ci moom mii di wax di itam ñu koy ñu lay seeral taxawaayu moom it ginnaaw mii mi taalibe gi feeñ na ci ak njëriñ ñëpp ñeen ko ci xel kon ñu ngi leen di ñaanal ci barke suñu Tuubaa ñu dugg ci ak jàmm te génn ci te suñu borom def ci ndimbal ak tawféex ba li ngeen ci bëgg lépp ngeen amee ku nu kaw seen jot salaamaaleykum wa rahmatullah